dem ci euh, lu ñuy tuddee gratuité manam ndimbalum njobot bi lolu wax deug yalla euh gis nañ ci euh ay résultats yu baxa baxa baax buñu jëlé bourse de sécurité familiale buñu jëlé jëlee crédit euh, euh, couverture maladie universelle fo dem ci commune bo dem amna ñu mutuelle de santé bo jëlé plan Sésame mag ñi nga xamante ne juroom nañ fukki article yu tek wax dëgg yàlla ñoo ngi faju te ñoo ngi bénéficié ci plan Sésame bi boo jëlee césarienne bi aussi jigéen yi ku ci toll ci euh, césarienne dañ la koy defal te doo fay dara donc loolu njëriñam euh, kenn werantetu ko ci dundinu doomi aadama yi fii euh, loolu nag tax na ñu ne waaw baax na mais doyul ñoo ñu ñu ne état bi na gën a yokk xaalis ba nga xamante ne moom la jagleel

biñ koy tëgg biñ koy euh, liggéey ak biñ koy xayma yëpp ñu mën ci am taxawaay bu am solo parce que ñoom ñoo nekk fii ñoom ñooy dund réalité yi nga xamante ni moom la population yi di dund loolu nag euh, comme lu neex du doy nee nañu euh, état gis nañu ne li nga def baax na mais jàpp nañ ne projet yi boo ñu ci jàppalee région bi dina gën a jëm kanam des population yi dinañu gëna a gis seen bopp ci euh, li état di def ci mbé mi nañu yok rek euh, aménagement yi parce que gis nañu ñoo ngi defar euh, barrage barrage u Afiñam mais buñ ko défaré té amul aménagement du jur dara donc ñu ne nañu yok aménagement yi hydroagricole yi pour que béy béykat yi mën am fuñu fuñu fuñu ñu euh gëna joxé itam euh matériel agricole luñ ci doon joxe coûte nañ ko yokk euh, réhabilité aussi defaraat barrage yu Guidel bi ndax ay at a ngi nii fonctionné wul te xamoon nañu donc loolu euh, bëgg nañ état euh, defaraat barrage boobu Pareil aussi liggéey bi nga xamante Mon le la commencé ci plateforme bu Bignona bi unité de traitement de la mangue pour en faire pour def ko jus de mangue wala pulpe de mangue bu ñu defaree jus bi bu ñu jëlee nag ci mbiru infrastructure état bi moo ngi def ay jéego ci yoon yi ak désenclavement bi fii ci région Ziguinchor mais nee nañu euh, Boucle di Boulouf liggéey bi war jot na nag ñu yeggali ko kooku euh, projet la bu ñuy ñaax état mu mu yeggali ko Boucle du Fogny euh, bëgg nañu état bi def ay jéego pour defar ko Boucle des Calounaye également projet bi moo ngi en mais ñoo ngi wax rek ne euh, yàkkamte na pour que euh, ñu mën koo eggale euh, pont Diouloulou bi ak pon pont Bayla liggéey bi tàmbale na mais bëgg nañ ñu gën a baral mbir mi pour que véritablement ñu ñu ñu ñu defaraat pont yooyu balaa jéyee di am ba pare nag pont Djibi Dione bi ku fa jaar xam ne pon bu war nañ fa def pont bu baax ba nga xamante ne dafay tax population yi nekk ci gox yooyu mën a ñëw Euh, côté Ziguinchor wala côté Bignona te du ñu am benn jafe-jafe bu ñu jëlee énergie euh, Ziguinchor état bi moo ngi def ay effort ci mbiru électrification mais des na moo tax ñu ne état na na gën a baral rek euh, liggéey bi muy def ci électrification rurale waa ANER waa ASER nañu waa waa Sénélec nañu gën a yokk lu ñuy def pour que électrification universelle boobu ñu wax d'ici 2020 ñu mën ko ñu mën ko am Manam dëkk yëpp fii ci région bi mën a am courant fii ak ak 2020 euh, li dem ci mbiru santé ñu ne waaw jafe-jafe yi ñu dund euh, fan yi passé ci ci ci ci accident yi tax ñu ne euh, jot na nag ñu def centre de santé bu biñona bi ñu yëkkati ko def ko hôpital pour que mu mën a am yenn spécialité yi mën a faj faj bu baax beneen bi aussi mooy centre psychiatrique bi nekk Kenya ñu ne état bi na ko euh, def hôpital bu nga xamante ne moom mooy faj ñi nga xamante ne seen xel dafa wàññeeku buñ demee ci sécurité ñu ne euh, proposé nañu état pour que mu continuer gën a def ay moyen ci déminage bi ndax région bi ku wax euh, région Ziguinchor xam ne Euh, jafe-jafe yi fi amoon tax na am na ay gox yaa nga xamante ne dañ fa def ay ndel ndel yooyu nag il faut ñu dindi ko pour que nit ñi mun a dellu foofu mën na dellu ci seen activité économique donc loolu tax na ñu ne état bi dina def ay moyens euh, ak ay jéego pour que déminage bi ñu mën ko continuer mën a débarrasser région bi ci ci ci mine yooyu bi ci mujj mooy ñu ne bi ñoo na màgg na màgg ba nga xamante ne jot na ñu def fa commissaria de police te loolu euh, urgence la fu mu nekk nii pour ñu ubbi commissariat de police fii ci ci ci commune Bignona